628 89 90 ngeen bës 2 88 628 28 28 ngeen bës 2 waaye itam 33 841 20 69 mooy numéro yi nga xam ne nekkuñu Sénégal ñoo ne bitim réew ci 33 boobu la ñuy wootee ñu daal di euh, dugg euh, mën a wax li nga xam ne mooy seen xalaat ci thème bi maam Sidi euh, su dee may nga ñu ko ñu dem xooli thème bi door a mën nuyu yaay ak Fall waaye bu nekkee nit may nga ñu ñu nuyoo tamit nga may ñu rek ñu daal di ñuy jég jég dégtal leen kàddu ñu nuyoo lu ko may ñu daal dem directement xooli thème bi daal di ñëwaat léegi léegi ci plateau bi incha allah. waaw léegi bi ñu may à l'âge de quatorze ans ma sëy ak sama benn doomu bàjjen laa doon sëyal koo xamante ne nii sama sama bàjjen moo ko jur mm-hmm. yaayam sama papa ñoo bokk ndey ak baay mm-hmm. léegi après bi ma takkee léegi ñu ñuy sëy mais sëy bi neexu woon parce que man bëgguma woon mm-hmm. léegi sama sama yaay ni ma il fallait nga dugg ci parce que euh, sama papa mën naa ko affaire yooyu noonu daal ni ko bu dugg ci sëy bi xam nga rek parents yi sama yaay saraxuma ba ma dugg ci léegi bi ma ci ma defal xale bu góor bi lépp man dama ko doon mere dama ko defal dara wax dëgg neex yàlla sama bu góor bi moo koy jox mu lekk moo koy jox mu moo koy defal lépp daal la bu ma sëyut ak kooku il fallait que bu ma mun naa su amee sama yaay ñetti doom ñetti doomi jigéen la mu ne bu ma sëyul ak euh, bu ma sëyul sama doom ba xam kooku bu ma takkee dinaa mën a toog ci kër gi a fi wéttee waale sama yaay yaay mais sama yaay ñetti doom yëpp bu ñu demee sëy du mën a tee am koo xamante ni day am wéttalam jëkkër kon rek ñu dugal ma ci sëy bi sama yaay saraxu ma saraxu ma saraxu ma ba mu ci dugg ci léegi bu ma ci euh, mm-hmm. ko dem di doxaan kooku ba taxu ko dem doxaan kan di doxaan kiñ ma may premier njëkke waaw kiñ ma may premier njëkke kooku tamit kiñ jigéen bee bàyyi na ko ak boppam bu ñëwee lu ko neex la lay def ak moom hmm. bàyyi na ko ak boppam mën na foo ci kawam et tout léegi nag muy mu ma takk ci Maria Forte mi muy wëlbatiku aussi tamit di doxaan kooku ci suuf sama xel parce dama jàng mu saana teg tablette am damay damay dugg def recherche su ma defee recherche ma gis explique la bind ci noo ci turam bi hmm. léegi de ma ma ma recherche lan mooy explique après ci laa gisee que ni ak ay photom e tout ça ci laa gisee que ni kii daf koy doxaan sama hmm. yaay ne ma teeyal dan sañul def lii sañ ko doxaan parce la munu munu munuñ la forcer ci mariage bi ba pare mu wëlbatikuwaat ñëw di bëggaat fàcc yow loolu man mënuma kaa dégg nga toog nga sëy sa sëy et tout ça après bi ñu bi bi ma nekkee ci sëy bi ma am doom ba bëgg bi ba divorcé. léegi bi ma ba divorcé nag. ba génn ci sëy bi léegi nag ñu jékki-jékki rek un bon jour. léegi ñu ne ñu ne takk nañ ko ñu ne takk nañ xale bu jigéen bi. léegi après ñu passe je tourne la page ma bàyyi loolu. léegi après ma toog jàpp sama ñaambu bi ma paree formation après léegi il suffit que euh, après ma xamanteeg ben xale bu góor mais xale bu góor bi nag maa ngi doon tànn di seet xale bu góor bi bi may xamanteeg moom dama ko tegal plan bu leer dama ko ne dama ko xamal carrément ni ko man de xam naa dooma takk dañuy nekk ay xale la mais xam naa dooma takk damay bañ ñu dem ba nga war maa takk sa papa bañ wala sa yaay bañ mu ne ma non non loolu amul problème loolu amul benn problème loolu du mu indi problème suñu famille ma ne ko sa papa di bëgg nga dem takk benn jigéen moo xamante ni dafa vierge xale mu ne ma nga takk jigéen bu baaxul ak nga takk jigéen boo xamante ni vierge dafa baax loolu ban importance di dalal sama xel daal. yow sëy bi da nga ca am doom wala amoo ca doom. sëy bi am naa ci doom. am naa ci benn doom. léegi waaw léegi après bi ma demee di di kii ak moom di kii ak moom di di di di di génn ak moom léegi mais li may génn ak moom yëpp na génn na ñaari at moom yëpp durant bi maa ngi koy dëkkal say nopp waxal say parents que ni dama am doom comme ça nga xamante ni buñ demee ba yegg ci stade bi nga xamante da may takkee doom loolu du nekk problème ci man mu ne ma waa ba mu jot ko wax yaayam léegi bu mu ko waxee yaayam yaayam ne ko loolu amul benn problème loolu amul benn problème tamit bàyyi noonu mais léegi ma ne ko moo ci des mu ne ma sama papa ma ne ko say mag yu góor tamit d'accord nañ mu ne waa sama mag yu góor d'accord amul benn problème léegi bu mu ko waxee mu ne ma sama papa tamit billaay su ma su ma bëggee tàggal su ma bëggee ñàkk rek ah dama tàggale yow ma ne ko dee ngaa bañ a wax loolu mu ne ma waaw su ma bëggee ñàkk dama bañ a tàggale yow mais seen seen nag mbokk kasee fay dugg ku dul mbokk du fa dugg te xale bu góor bi nee na du takk mbokkam mhm. xalaatu ko sax léegi après ñuy génn mu baax léegi um, euh, étudiant la woon mais ñuy dem di dem di dem di di raam di raam di ba mu am liggéey mais liggéey bi bi mu ko amee bu mu bëggee woon euh, ku ko signé fële ne ci entreprise bi sax benn contrat man man maa taalibe papa kooku defal ko ñaan ba ñu ba ñu signé ko contrat bi ci entreprise bi mhm. ñu ko signé le contrat bi ñu continuer naan ma sama yaay mu ngi naan ma kii yooyu dama ne ko non non comme genre yooyu noonu léegi muy dem fa dañu ne changé wu jikko et tout ça ba ba ki ko fa ki ma fayoon pour mu signé ko pour mu fayoon pour mu ñaanal ko ah mu mujj xaritoog kooku noonu sama taalibe papa boobu ba ne ko wëlbati wëlbati ci kooku ne ko defal ma ñaan nga xam ne bis bu ma taxawee pour takk diw ah sama papa du indil benn problème ak sama yaay kooku aussi tamit moom dépassé na ni que ni affaire loolu war war famille bi war ñu ko mën a bañ daal jékki-jékki mu ne ma nii eh, yow de yaa da woon wax naa naa laaj sama papa mais sama papa bu ma ko laajee def na ma carrément ku am doom moom doo ko takk parce que ñi dañuy wax hmm. affaire bi jëlee ma déception carrément ba nii nii may wax ak yow sa affaire bi dama toog ba ci yàgg mu jàpp ma dama naan dama naan eh, eh, dama leen loolu loolu loolu ñoom loolu lan moo ci nekk ba ñu ba ñu war ko mën a bañ. parce que dañ naan diw dafa bon dafay taxawaa et tout ça après ya ay raxam ci naa ngeen demee bu nekk. yaayam aussi tamit pare dama yëkkati sama xaalis parce que doomam bi ñu ko fayee salaire daf naan xàcc si salaire am. de chaque weer bu dee chaque weer bu dee nag bu ma mu sànni may sax ma naan ko non non man soxlawu ma sa xaalis mais daf ma koy forcer papaam xam ne njëkk naa wax ak papaam pap mu ne papaam kii laay tax xam xanaa papa ji xam ne day dëgëranteeg moom mu dem hmm. yekku ko ci xalfu hmm. fuufa hmm. ba yeeku ba mu dëgër ah? yaay ji amul benn problème yaay ji sax woona ma mu ne ma man maa ngi nii yaay am na ñeenti doomi jigéen mais doomi jigéen kenn ci mooma mag mais ñeneen ñi def ñëpp maa leen yaay ji ne ma man xam naa ni metti na li euh, man maa ngi nii ay jabar yu jigéen laa jur te xamuma sax fan la ñuy mujj ëllëg donc nag su ma sañoon ñu bàyyi noonu rek mais nag papaam moo d'accord ak waxul li ñi daal papaam ne ko kooku boo ko takkee daf lay féete mag doo mën a nekk góor bi ko mag. Mm, xale bu góor bi moom moo magee ñetti at man maa ci samay 22 ans instant bi. Mm, mm, maa ci samay 22 ans xale bu góor bi moom mu ngi ci. ay guddi gi la wooyee wax la loolu lan nga non daf ma metti ba nit ñi daf ma metti dafa mujj obligé sama yaay dafa mujj obligé di ma ñaan lool pour ma koy fàtte am am na ñaan bu ma defal bu may naan di ko parce que deux ans euh, dund naa ceeg moom yi naa ceeg moom euh, euh, wax fa dëgg lu ne parce que xamee naa ci jikkoom xamee naa ni ku baax la nit ku yaru la ku am dal nit ku am tey parce que des fois sax crise de ma daan jàpp ba ma ko doon naan doon ko wax naan ko bul wax ak diw bul wax ak benn jigéen parce que jigéen yi dañu doy waar parce que maa ngi doon jëlee li ma dund ci sama mariage bi nettali woon naa ko moom tamit dafa ma daan comprendre voilà. depuis bi mu la woowee ba léegi ndax yéen a ngi déggante. instant bii nii moom dafay obligé di ma woo mais nee naa ko bu ma woowati. man maa ko wax mhm. sa papa ma ne la sa papa nee na doo takk ko man ne la ma mujjee woo su ma daf ko woon naa ko thème bi bëri na su thème macha allah. Mhm. Euh, takku mariage forcé mi ngi ci. Euh, ku ñu jàppee jigéen ba faf nga dugg ci sëy bi di wujjeeg moom mi ngi ci. divorce bu metti mi ngi ci au delà ñaar yooyu yëpp nag bëgg may koo xam ne dañu ne dafa sëy ba tas. Mhm. mi ngi ci. loolu nag jigéen ñi yaay ñu ngi ci souffrir bu baax a baax nañ ci ñëwaat léegi incha allah ci kattanu borom bi jigéen ñi ñu ngi ci souffrir ngi ci sonn ñu bàyyi la nga nuyoo ba pare jërëjëf Mantulaay ma lay nuyu bu baax di la fay di wax amin ci sa nuyoo da nga ñaan ay ñaan yoo mhm. xamante ni yàlla na dal Sénégal yàlla nañ ko bokk ñun ñëpp mu tombekk malaak bi wax amin looloo jara ci suñu réew bi ma lay nuyu bu baax di la wax ni la namoon naa la maa la raw yaay di nuyu El sama xarit bi. Fall Yaram Fall. di ko nuyu bu baax maa lay nuyu maa ngi ziar.